asalaamaaleykum si internet yu Dakar Midi gannaaw bañ leen nuyoo di leen ziaraat di am mbégte jàkkaar ak waat yéen si beneen facette wala tam si beneen lëfën li nga xam ne moom la ñu war a waxtaanee ki ma toogal nag kenn du ko présenté dama koy bàyyi mu wax mu wax nuyoo nuyu ñi nga xam ne ñoo ko si suivre à travers euh, Dakar Midi. salaatu wa salaam ala rasulullah sayyidil kawnayni wa saqalayni wa faariqayni xurbil ajam alimina shuhudi nahbat bani hashim muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam noo ngi ziar waa Dakar Midi eh, ñu ngi seetaan ñëpp di di nuyu bu baax eh, Seyna Ousmane ak eh, maam Thierno mu maam Thierno Darou Sani moom Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni moom Seyna Ousmane moom maam Thierno borom Darou ñu ngi leen di ziar bu baax te leen jox seen wàccuwaay te di ziar ñuy suivre Dakar Midi yëpp di ñaan suñu borom defal ñu tawfiq ak taysir ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gannaaw boobu gis ngeen euh, lu mu nuyoo tamit euh, di ko jaajëfalaat bu baax a baax di am mbégte ak contentement di toog moom ndax saa su ma toogee moom rek dama siy jëlee li nga xam ne mooy njëriñ ak li nga xam ne mooy xam-xam te tamit day joxe li nga xam ne mooy xam-xam su wàllum ñi nga xam ñoo nekk Sénégal wax tamit li nga xam ne moo xew si réew mi mais avant tout dañuy xuus li nga xam ne moom moo dal loolu moo nekk fee nga xam mooy tuuba ndigal bi xalif yi joxe léegi mm. léegi yow en tant que tàggatu Seydina Mohamed euh, noo ko gisee waaw di am di am di am contentement bu baax a baax ci euh, euh, question bi euh, ndax Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér suñu borom defal ko tawféex ak tey taysiir ba naal bi mu naal liggéeyal maamam yàlla na ko yàlla yombal ndigal moom ci li ma xam mooy jëfe rek ginnaaw joxe na ndigal ci ci ci Baay Faal ndax bu fi bu fi bu fi bàyyee ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo ñoo war a saytu dëkk bi mu dem ba dénk ko Baye Fall yi am na lu tax mu dénk ko Baye Fall te dëkk boobu wax dëgg yàlla day dëkk woo xam ne dañ koo war a jox warma ndax Baye Fall def nañ ci annonce wër nañu Touba wër nañu fépp Touba fépp fu dëkk nekk ci Touba Baye Fall yi takk nañ seen rajo dem nañ fa wax ni sëriñ bi jox na ndigal joxe na ndigal ci warmay dëkk bi muy Touba Liman Balaga kon nag bu sëñ bi joxee ndigal ndigal moom ab murit du koy jëfee waaye dañoo toll ci dëkk boo xam ne dëkk bu neex bu naqaree waxal la euh, di ziar bu baax euh, euh, Serigne bas Abdou Khadr nga xam ne day jàmbaar waaye day nit koo xam ne nit la boo xam ne ne may faral di wax ni gën koo seetlu ci réew mi yombul waaye gis nga lu ne lañ koy waxal lu ne ngay dégg ci doomi Serigne Abdou Khadr googu muy nit ku baax muy nit koo xam ne mu ngi dëkk fii ci ginnaaw sama dëkkandoo waaye day nit koo xam ne euh, du du génne di wax nafsu boppam lépp lu mu génn di wax rek ci sëñ Tuubaa la génne te sëñ Muntaxa mii ku koy jàppee doomi sëñ Basiru dëgg la doomi sëñ Basiru la waaye ku koy jàppee doomi sëñ Basiru kon yow comprendre lu xew day sëñ Tuubaa sëñ Muntaxa dafay sëriñ Tuubaa jamono may yoon kon nag bu sëñ bi joxee ndigal mu jox ko sëñ Bass Abdou Khadre mu mu ciy wax du sëñ Bass Abdou Khadre moom mooy wax maanaam kiy wax fi ko jëlee koo koy koo koy wax te ci sëñ munta tax sëñ Bass Abdou Khadre ñemewul génn di wax waxi boppam déedéet sëñ Muntaxa buy yebal sëñ Bass lay yebal mbaa moom mu génnal boppam waxal waxal li mu waxal boppam li tax ñu def yor may Touba nag maanaam euh, ñi ne waa Touba waa Touba dañu war xam ne dëkkuk Touba bokkul ak dëkk Ndakaaru mba Louga wala tàmba wala Kédougou wala Casamance wala feneen ak feneen Touba dafa am ay worma yoo xam ne nit ku nekk da ce war a bàyyi xel te loolu yëpp nag boo gisee mu am euh, sëñ sëñ sëñ maam Thierno maanaam euh, euh, dañuy faral di wax ni gone bu dax bu da bu dabee waxambaane ci yoonam ca doxinu la maanaam bukki tamit bu dabee gaynde ca ca ca ca ca àll ba rek ca doxin wi la dafa am ci lenn yoo xam ne ci ñi sant Mbàkke dugg ci politique bi man dama jàpp ni politique bi moom dañ cee war a génn comme nit ci sëñ bi génnee mais ñëw tuuti li nga xam ne ndax ah, ku ne sëñ mu Moukabaro xam nga ne tàggkatu Seydina Mouhamed la te jamono ji dañoo gis ki nga xam ne mooy tàggkatu Seydina Mouhamed yi changé li nga xam ne beneen facette beneen wala beneen solin gis li nga xam ne suñu benn mbokk génne clip sol si li nga xam ne mooy yëre tubaab gis tamit nu mu tourné clip bi mais suñ gisee clip sax toog nañ keroog ma laaj mais mu ne jot na ñun tàggkatu Seydina Mouhamed yi bañ ñoo xamee li nga xam mooy grand mbubu wala li nga xam ne dañoo war a kiling wala lu baax rek ñoom ñoo ko war a moom. waaw waaw yi ñuy jaxasoo li nga xam ne mooy mbalaxmaan. voilà waaw ndeysaan ki ko ki ko ki ko def daanaka maag baayam la woon euh, di Mouhamed Alla Diop euh, baayam nekk suñu kilifa nekk suñu mag mag ñu lool nag nekk nekk ku mën a way macha allah Alla moom euh, moo dàq woy Mouhamed Alla Diop foofu sax bokkuñu xam nga <laughs> mais moom parce que li mu daan moom moom ñoom ñoom woy yu ñu daan woy woyu mag ñu njëkk ñu lañ daan way waaye léegi xam nga jamono dafa dafa dafa changé léegi bon jaxasoo bi am maa ngi dégg muy woy woyu Youssou boobu sax an ana bee bi yoo mu mu mu mu taw féexe lool ndax euh, ñoom sama sama sama doom bi sax dañuy gis nii daf may faral di tooñ naan ma mais papa ki moo dàq woy yooyu affaire mais parce que ñoom yooyu la ñuy yooyu la ah, yooyu la ñuy tombe dégg naa moom mooy Waly uh, kii yooyu nag waaw ay waaw maam xam yooyu yëpp dañ koy damay dégg ñu koy def waaye war nañu uh, ni mag ni mag ñi daan def ndax yonent bi lépp ak yi ci moom affaire bi du ci colin wala affaire bi du ci saayir bi saayir si nañu def seen seen seen seen seen seen kii seen part yow mi nga xam ne yaa parce que mës naa dem benn benn jàng ñu ne <laughs> jàng bi ma dem mais da nga gis ni tàggkatu yenent yi dañ leen di tegee ne mu musiciens yi ñëw di way ci guddi yenent bi loolu affaire boobu dafa ma naqari woon nag mais mais mais soo ma ma ñëw tuddi suñu ne tàggkatu Seydina Muhammad ne temps yi yéen maanaam tàggatoo leen Seydina Muhammad da ngeen ut xaalis nga xaar ma ne da ngeen xaalis wala ngeen tëggal li nga xam ne méngoowul ak li ngeen li ngeen li ngeen di sikkar wala soit ngeen ngeen fi tëggal li nga xam ne mooy guus-guus li nga xam ne mooy moom moo xew ci jamono ji léegi maanaam yéen taggatoo leen Seydina Muhammad yéen xaalis ngeen wut non loolu de ku koy def xamoo yonent bi loolu ku koy def xamoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax tey jii ay ay ay ay tëgg yoo xam ne tey jii comme ni li xew ci ci saayar si nga bëgg ko ànd ci yonent bi xamuloo kuy Seydina na sallallahu alayhi wa sallam. gis léegi yéen tëkkatoore ne ay tëgg di nga maanaam sabar sax laa ko jàppe am ak ñi koy def ak tàggat yent yoo xam ne yow foo xam ne kenn woowu la fa c'est que dañoo war am personnalité man mii di wax ak yow mbakki yu fay mës nay génn représentant xalif général des mourides ñu ne ma xa jàngal xasida ma ne problème ma ko waa waaye ñu ne ma parce que mbakki c'est le représentant boo jàngee mën nga fi am benn deux cent mën na la bokkal deux cent wala cent ma ne ko lii nga wax ne tax du ma jàng tagg yonent bi c'est un plaisir de le faire lu la ci fekk nga xam ne daf la cee fekk tag yonent bi dama liggéey yonent bi doon liggéey est-ce que baax na mais da ngay ñëw gis benn bâche ñëw gis benn bâche xamoo nu baas baaso nga ñëw taxaw di woy yonent bi ay meer naan la may ñu mais xamoo li nga yor ñoo ñu yor xaalis bi ak ku mën a doon muy usaas yi wax ci yonenti beeg ñii di wax ci yonenti beeg ñii di ko tàgg ñii di ko woyak di topp borom alal sax di ko waxal loo xam ne c'est pas kii est-ce que comprendre baax na c'est pas ko yonenti bi parce que yow da nga koy businessé mais yonenti bi du ko nuy businessé ñu si bëri na dañuy business yonent bi ah moo tax la waaw moom laa la wax dafa am ñoo xam ni ak yonent man fu mu toll nii man sama morom tàggat yi dañ ma koy wax man man lamba ma jëkkëru kenn man borom man su ma xamee ni borom alal nga sax duma la du feeñ man j'ai sept ami milliardaires sept amis milliardaires duma dem seen kër xanaa kenn koo xam ne sarax borom jaam ni Nazir al nga xam ni moom moom moom moom bu tey je comprendre baax na muy muy muy muy muy muy kenn ci man mais ñi ci des j'ai sept amis milliardaires yoo xam ne duma dem seen kër. su ma la rombee ci mbedd mi dama lay daw parce que dafa am loo xam ne nekkuma ci parce que ñoom euh, euh, il faut que nga leen di li li li ma li ma ñaaxarañ loo waxoon rek ne ma duma ne mu ñuy waxtaan ba ci yàgg ci ay kii mu ne du ma may sama xaalis muuma ça di dire <laughs> du may xaalisam koo xam ne du wax te borom alal yooyu dañuy bëgg loolu te dañuy am jikko est-ce que baal ma Sénégal ñi ci am alal ñu bari dañuy am jikko tey bu ñu yoree jikko bi bu subaa da ngay ñëw fekk ñu yor jikko be te man yooyu nekkuma ci dafa am yoo xam ne boo dee yow tàggeetu yeneen bi nga yow da nga war a am personnalité sa bopp te xam ne yow ki ngay way ki ngay way <laughs> kooku kooku xaatimul anbiyaay wa imaam yi kullu mursalin kooku teraangay àdduna yëpp ci moom la fekk baax teraangay ñi nga xam mag ñi fi nekkoon ñëpp doon way yonent tibi moom la sëñ Tuubaa ne fala taisu ibdi abdillahi bil fudala innal kawakiba yufiya sinimaaru lil mustafa xayri xalqillaahi mansilatan la wujja nahwa kullal war a xaaru sëñ Bàmba ne raamal waraa nay la fadrin musina loo mu ne ngëneel yëpp wal fadlu inda rasulillahi xaraaru cheikh na cheikh saadu la bi wuldu cheikh awdu faadal bun maamin taalibal xayaar diin muxtaar mulay aboubacar mulay araan mulay ajmalaan idris al kaamil asan musanna asan al sibti ali abi taalib muhammad rasulillahi kenn du moom ndax innal muraada min ijaadu xalqi ijaadu ahmada li fatxirati akramu man tusillu xarra o xayru man tuxillu xabra alal maratibi suwudda saati tafadul li saydi sadati nga dem waalo waalo boobu jóge gaaya sanc tiwaawoon Maodo ibn Ousmane bàyyu sëriñ Babacar Si Malik ñu ne ko kan mooy rasulullah mu ne wa innahu is arada allahu nas atana Maodo ne abaana mi nuur yi mu ne nuuran alami bañ laajee Lamartine français ba dafa ne si la grandeur du dessein la petitessement l'immensité font les trois mesures du génie de l'homme mu Muhammad Rasulullah xoolal Lamartine li mu wax plus qu'un homme la wax waaye moins qu'un Dieu qui osera véritablement comparer l'histoire moderne à Seydina Muhammad nabi il est beau parmi les plus beaux parce que Rasulullah il était très beau xaatimul anbiyaa'i wa imaami kullu mursalin saydil kawnayni wa wa xaramayni mooy taaha mooy yaasin mooy mooy mooy mooy mooy nuuraa mooy shaafi ana kenn du yonent bi sallallahu alayhi wa kooku nag mënoo koo am bi nga noppi am Seydunaa Muhammad ba nga xam ne ñàkkoo dara dem di ñàkk fayda di wari baas yi gàmm yi sax da gis ak màggal yi sax borom alal la ñuy wër man damay tàgg tàggkat yonent yoo xam dañ may woo ak kii ne ma sax foo ne di wëgi fii di toj fii nangam ak nangam parce que yooyu la ñuy ñoom yooyu yooyu la ñuy wër mais man damay liggéey maa ngi sant yàlla comprendre baax la ma moo kenn du ma ci kenn du ne damay dem këram di ko woyal yonent pour ñu ma may Cerno yow ak Ousmane ma woyal leen yonent bi plaisir gi may am moom gënoon ma di ko woyal kon woyal ñu koo xam ne xaalis la la la yor waaw kulu ma naa la yaa faanin wa yabqaa yaneen laa ilaaha illa llaah wow bàkku doy na fa mbëre fi man xul walla woo siduna muhammad kul man alaya vanin wa yabqa ya neen laa ilaaha illallaah wow bàkku doy na fa mbëre fi man xul walla woo siduna muhammad lu waay jàpp na bee gën ala kulli farlay farlalaaw farlawoo farlawaay farlawoo abdalaay baayam abdalaay abdu mutalib bun asim bun abdul manaaf bun xusay bun kilaab bun murat bun kaab bun luway bun xaalib bun fir bun malik aynabi bun kinaanata xusaymataak mudrikataak ilyas mudannisar ma adnaan way leleen maya muhammad rasulullah way leen way salaam eh, ne ko kàddu yi eh, rafet na trop ah, sikar si neex na trop ndax kenn du yonent bi ah, yaakaaru jaam ñi kenn du kenn moom moom la eh, sëriñ bi doon da liggéeyal ba am si ngër moom waaw ah, dañoo gis ki nga xam ne mooy Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni di sama yaakaar te ëllëg gis li nga xam moom dugg li nga xam mooy si langue politique bi tuddee boppam am benn structure bu ñuy wax alxadimiya ñëwaat keroog gis nañ mu def lancement ba ñuy wax euh, mu tuddee ko le coalition du siècle ànd seeg ki nga xam mooy doomam di sëñ Abdou Khoudous jiite li nga xam mooy euh, coalition bi en tant que tàggatu Seydina Mohamed la nga gisee euh, kii nga xam mooy Cheikh Ahmadou Kara noonu la. xam nga Cheikh Ahmadou Kara Mbacké nooree nii moom dama li may faral di wax rek missionaire la. ni mu nekkee missionnaire man dama jàpp ni loolu man la engagé mooy ci mbàkki mbàkki yi gisee ak Sëñ Tuubaa bokk ndax boo xoolee euh, moom dafa yor mission boppam maanaam du ay sëriñ yi comme nii non non dafa yor mission boppam ku tedd ki doo ko jox mission te boo xoolee wormaay Touba moom moo ko njëkk wax te Cheikh Ahmadou Kara Mbacké noori ni lépp lu ko lu ko lu ko jaral ci àdduna ah sëriñ Touba ko jaral lu nekk ci àdduna àdduna yëpp xam nañ lool dëkku sëriñ Touba jaral lu ne ci àdduna kon wormaay Touba moom ci moom moo ko fi njëkk wax te bi mu koy wax même ba ci policiers yi sol seen dàll ci biir jumaa jeeg yooyu créé fi woon KS nga xam ne ñoom dinañ leen tarbiye tarbiye boo xam ne voilà dinañ mën a nekk muy classe sécurité mën a nekk ci biir jumaay Tuubaa mën a nekk ci biir entourage bi di wax ak nit ñi nga xam ne tey jii warma bi day am ndax tey jii xam nga ñoom ci lañ leen jàngal ab policier wala ab kii sax bu nekkee ci guerre sax du simbi dàllam waaye ci warmay tubaa loolu Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni Eh, eh, eh, créer loolu dafa doon am solo boo xoolee moom ay waxam dañ ko war a di bàyyi xel boo xoolee bi muy wax ci li gars yi di xëccoo ni tey gaz bi feeñ na petrole bi feeñ zircon feeñ bi mu koy wax jamono dañ ne woon mais kii est-ce que ça te pour pourtant tey jii ñu bari am na sam benn jaay joo xam ne day faral di doon sëñ Modou Kara ko njëkk wax te bi mu koy wax gars yi bàyyiwuñu ci woon xel kon moom dafa di loo xam ne tey jii day xam lu ñëwagul te dafay am dimension bi muy waxee te loolu ay ponkal ñoo ko ko ñoo ko ko samp sëñ Abdoulaye newoon na ko ku mënul sama jumaay baay bi dara mënul ci yow dara ku mel ni sëñ Modou Awa Balla nga xam ne di taaw maam Thierno Ibrahim taxaw ne ko ŋaangal mu ŋaang mu am lu mu def ci gémmiñam mu ne ko Modou danaa ñaan suñu borom loo bëgg suñu borom def mu ne ko motu ko Modou loo bëgg suñu borom dana ko def mu wax sëñ Modou mu wax Baye Amadou Samb yàlla na fi yàgg te ne ko ne ko waxal waa daaru nañ jàpp ci Modou mi bu jóg jógaale leen buy baax baaxal leen donte sax day safaanu baaxal leen te def ko muy seen Serigne Touba c'est que ay dimension yu waxee bon nit ki boo xamul dimension bi muy waxee bu ko jékki-jékki attaque te wax moom politique am moom Cheikh Amadou Kara du politicien yii nii du ay ki fi nekk ak ki bëgg a ñëw wala na parce que ñooñu day am benn intérêt bi leen tax a waaye moom politique am da ko concentré wu ci ci diine ci yar ndaw ñi ak ci ñu xam kuy ku tedd ki muy Cheikh Ahmad Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul moo waral alxadimiya boobu muy muy muy woote boo xoolee ci ay ay ay jotaayam yooyu yëpp saayar du fa am nga xam ne da ngay wax ni wàjtani bu majaalisa saxaawa doo dem benn jotaayam bu bu saayar di am par rapport ak yeneen yi foo dem musique baa ngi rëq saayar saa nga fa lu nekk ma ngi fa mais moom boo xoolee buñ ne Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni moo woote fii doo fa dem doo fa gis lu dul li eh, li Sëñ Tuubaa wax ni yaa ayyuha sibyaanu e yéen ndaw ñi laa tastaxilu anil huda bul istaxilu bi xifsi wa tilaawa wajtani bu majaali sa saxaawa te leen moytandiku jotaay waay texe di te boo demee diwaan nga gis nu ñuy tarbiya ndaw yi nga dem kaayes nu ñuy tarbiya ndaw yi maanaam secteur boo dem ci foo xam ne moom mooy njiit li rek dangay gis ni li sëñ di wax ni bu leen di yittoowul dul wottu ak jàng te ngeen moytu jotaay waay texe di kon kooku bu bu politique bi muy def bokkul ak euh, ak ak ak politique yi nga xam ni moom la moom la moom la gars yi def moo tax mu wootee al alxadimiya dénk ko sama waa ji ci sëñ Abdou Khoudous yàlla na ko yàlla barkeel yàlla sàmmal ko boppam bu baax a baax kon moom euh, dimension bi mu waxee dafa am beneen dimension bi mu waxee la gars yi war a mën a xam ci moom mais contrairement réew mi euh, moom bu waxee fii gars yi duñ ko comprendre nag léegi nag il faut nga am ak ndimbal pour xam kii fi muy fi muy fi fan lay waxee waaye war maay Tuubaa bi gars yi def ndax fa lañ nekkoon moom moo ko njëkk wax tax Touba dañ ko war a wormaal keroog bi ñu taxawee dóor Lac-Roselle diggante biñ ko dóoree ak fii sëñ Touba ne matul un kilomètre loolu kuy murit ku ne dalaa naqari kuy murit ku ne am nga lu la bu sëñ bi demee nag ba ne nañ jëlee bureau de vote yëpp génnee ko Touba am na fu mu ko teg bu sëñ bi waxee nag bépp loo xam ne tey jii sëñ bi sëñ Touba bokkoon ci dëkkam bi nañ ko génnee am na fu mu ko teg maam Thierno dañuy dem léegi ba Touba gonek ndakaaru dugg nañ ci tiktok bi gonek Touba yi dugg nañ ci tiktok bi réseaux sociaux yi ba nga xam ne léegi dañoo bëgg transformer Touba def ko muy ndakaaru waan Touba yooyu dañoo war a xam ni Touba du ndakaaru tuubaa du Tamba Touba du Louga Iran bi boo fa demee am na dëkk boo xam ne tey jii chef religieux bi fa ne ñemewoo sol yenn sol ni di fa dox kon nag bu ñu demee ñun tey jii ba am suñ Touba ne malaka ni duniyaa wa oxoraaye samudu tey jii sëñ Tuubaa bu wëlbatikuwaat wax ni yàlla ne ko wax ma loo bëgg mu ne ko iji ar rujuu i ilaa qawmi naa defal sama dellu muy mbégte ci waa senegal wa tag fi naa na leen musal yow ma jam i xalqi niiraana bés bi ngay dajale nit ñi di leen yóbbu sawar fexeel ba waa senegal buñ ca bokk sëñ Tuubaa bu demee ba ñaanal ñu loolu ñun tey jii waruñu ko mën a fay surtout sëñ Baara daan na wax ni la ñuy tere tubaa waa Touba ko njëkk def sëñ Baara mu sëñ Fall la ñuy tere Touba waa Touba ko njëkk def sëñ Abdou Lahat mii dégg naa sama baay muy wax ni mës nay bëgg defar tubaa ba jël ay xaj sax dugal leen biir Touba ngir rek lépp rek mu war a xam ni war warmaal dëkk bi dafa war waaye tey jii man mii di wax yor doon naa dem Daaru Musi ab gone yor kalandoo mu jëlee ma gaaraasu daaru di dem jip maa ngi jàkkaaru Lamp maa ngi paase xeera ma ngay teg musique boo xam ne ñett ñi gën a siiw du ma tudd turam ñett ñi gën a siiw ci musique gu Sénégal bi ji ca la bokk mu teg musique am di daw jëmi jumaa ji ma ne ko sëñ bi taxawal ginnaaw yow aw nga fit rom bi sëñ Tubaa ak ay musique man aw ma fit boobu lenn moo mën a am mooy damay wàcc oto bi nga continuer wala nga fay oto bi ndax maa ko maa ko maa maa maa ma maa la jël ba ma romb jumaa ji ba ma àgg booy taal sa sa musique nga taal. teg dama gis waa Touba ñu bëri man dama am ndax gis naa si ay nit. Ah, gis naa ay nit waa Touba yu bëri maanaam lu xew ndakaar moom moo xew biir Touba da ngay gis dañuy dañuy parce que lu dañuy teg cross-top wala ñu dugg dugg si TikTok bi wala leen am na nu ñuy tee léegi comme ça comme tey dafa mel jamono yi ndax duñ ne dëkkuñu nekkuñu fee nga xam mooy Touba Mbacké. xam nga doon noo infiltrer yoonu murit doon koo infiltrer infiltration bi ñu ko infiltrer mooy ci ndaw yi lañ mën a jaar ne sëriñ si waroo leen mën a gën parce que gënuñu la mais euh, sëriñ ci Mbacké Mbacké yi bari nañu. ku ci topp yoonu maamam mais war maa ko jox ko cër ku ci toppul yoonu maamam maanul ci moom xam nga jàmbaar ji di Serigne Cheikh mu sëñ Serigne Salim nga xam ne daraay àdduna ñoru ko àdduna lépp du ko wuy si waaye bëggul ci dara moom sëñ Cheikh moom sëñ Salim ndonol baayam bi mu yoroon moom la téye ba léegi xel koom gii muy woote baayam a ko daan woote waaye tey ji xool bu ko wootee ñëppay faq dem wuy ko sëñ Cheikh alalam ak jitteem yëpp ci jumaa la ko def ci daara ak ndongo yi kenn dana ko fekk foofu di ko yab moom sëñ Cheikh moom sëñ Sadio demal sëñ Alaaji Mbàkke moom moom moom moom sëñ moom sëñ Moustapha Absa moom sëñ Modou Balla moom maam Thierno sa yaayam di soxna moomi moom sëñ Saliou moom sëñ Touba Alaaji sëñ Alaaji Mbàkke koo xam ne da ngay ànd ak moom du xool sax asamaan si sëñ Alaaji Mbàkke am mun naa la citer Mbàkke Mbàkke yoo xam ne c'est des exemplaires ay Serigne Touba yi dox ci kaw suuf lañ mais nanu bàyyi Mbàkke Mbàkke yi nga xam ne ñoo jege peut-être pouvoir bi wala ñiy jege peut-être opposition bi dem di waxal sëñ Muntaxa loo xam ne wax ko ay sëñ bi sëñ bi neena diw bàyyil wala sëñ bi nee na diw nangam waaye sëñ bi ma sëñ bi li mu war a wax sëñ Muntaxa li mu war a wax. chaque jour mu wax. voilà jour mu wax ba pare sëñ Bass Abdou Khadre ma ngay wax waaye kenn faale ko te sëñ Bass Abdou Khadre la la la la la moo fi moo fi moo yor kàddu sëñ bi sëñ Bass Abdou Khadre boobu position gi mu ne xoolal lu ne lañ ko yàq sëñ Bass Abdou Khadre lu ne te nee naa la gën koo sell ci réew mi yombul doomi sëñ Abdou Khadre Diol barki Cheikhul Khadim gën koo seetla laaloo jege yàlla ci réew mi yombul waaye xool lu ne ngay dégg ci moom lu ne ngay dégg ci moom te doo ko dégg mu wax doo ko dégg mu ŋaang lépp lu mu wax rek ci mooy mooy mooy li mu waxoon keroog bi ñuy def rek ñun Sëñ Tuubaa lu mu wax te te te gisaguñ ko moom la ñu gën a gëm gëm kaasu kafe gunu ñu tiim di ko naan nanu bàyyi sëñ bi sëñ Muntaxa ñun ñii gëm Sëñ Tuubaa te ay murit nan mu bàyyi sëñ bi ñoom ñi gëm leneen nag nekk ca politique ba di defi leneen nag bëgg mbobboo sëñ bi jaar ci waa tubaa jaar ci ndongoy tubaa di ci def yoo xam ne teguwul jaaduwul kon loolu nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax. waaw sëñ Modou ah, kàddu yi am na solo trop trop li nga xam ne moom nga wax ah, ki nga xam mooy suñu xalif général di sëñ Mountakha Mbacké ñu koy ñaanal yàlla bàyyi ko fi mu lool ànd ak wér noonu lañ koy ñaanal ki nga xam mooy sëñ Bass Abdou Khadre te noonu laa koy ñaanal ki nga xam mooy général bi mooy Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni ndax tey jii lu am moom la te tamit lu ñu mënit moom la mais jaaraama maam Thierno maam Thierno Mbacké te du ma génn Tuuba nuyu ma ñi nga xam mooy famille Touré ndax gis nañ gis naa ni ngeen ma teeroo si màggal gi ku si mel ni Mot Naar ak ki nga xam ne mooy Amina Touré gis nañ ni ngeen di jàppale li xam ne mooy si màggal gi mais dañuy dugg li nga xam ne mooy si politique bi gis nañ ki nga xam ne mooy Macky moom bokkul jiital ki nga xam ne mooy Amadou gis li nga xam ne mooy APR demee na côté Ousmane Sonko gannaaw ba mu ko dencee fee nga xam ne mooy sa euh, euh, prison mu defoon li nga xam mooy grève de faim. waaw maanaam xam nga Sénégal moom moom réew mi moom toll na foo xam ne ci wàllu politique dañuy ñaan yàlla rek euh, ku gën ci réew mi ginnaaw président mag sàll bokkul ki gën ci réew mi yàlla na ko yàlla andi ndax candidat bari na waaye sénégalais yi sonn nañ trop. waaw kon nag euh, ku waxal yàlla rek xam ne sénégalais yi sonn nañ trop euh, euh, war nañ leen a bàyyi xel bu baax a baax réew mi metti na gone yaa ngi jël gaal gi ñi ñu ngay dem courant yaa ngi yokku xam nga yooyu yëpp courant yaa ngi yokk gone yaa ngi jël gaal gi xam nga nit ñi amuñu liggéey c'est un peu dur et un peu compliqué. jël gaal googu ndax dama gis ay xale yu ndaw est-ce que sa faire daal man dama gis ay xale yu ndaw wala mu dugg si TikTok bi gis ni nga xam ay xale yu ndaw dem li nga li nga xam ne mooy Espagne. waaw xam nga maanaam ñàkk mooy dugal ci nit lu ne ñàkk day dugal ci nit lu ne waaye loolu kenn rafetloo ko jigéen du ëmb nga dugg ci gaal wala jël ay xale yu ndaw dugal leen ci gaal ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy dem naan dañuy dem Espagne pour wuti wërsëg. te waroon na mën a toog seen réew mi fii liggéey fi tekk fi amee fi dara loolu dafa metti moo tax politiciens yi daal war na nañoo mën a gëstu daal population bi ndax population bi sonn nañu trop population bi tamit war nañu am fulla ak fayda ba bu bu tànn njiit jotee ñu tànn njiit boo xam ne daf leen di liggéeyal di leen bàyyi xel waaye dem di tànn njiit boo xam ne boppam lay liggéeyal ak njabootam loolu day xaw a metti ci waaye dañoo toll jamono joo xam ne kun ci jox dix mille mbaa ñu jox la cent mille wala un million rek nga ne non fii la àdduna yem nangam ak nangam sama yoon newul ci keneen loolu aussi war nañ ci bàyyi. mais noo gisee li nga xam ne mooy euh, président Macky Sall choisir bu mu choisir ki nga xam ne mooy Amadou Ba. waaw loolu xam nga moom kit ku nekk rek kala doy moom ngay jiital xëy na moom Amadou Ba da ko doy moo tax mu jiital ko. ah jiital bi ko jiital nag bon ak ñi mu àndal xëy na dañoo jàpp ne ñun mi Amadou ñu doy. ak li ñu ko waxal lépp dama dégg ñu ne ay ki nga xam ne mooy euh, euh, Amadou wala premier ministre mënul gagné ki nga xam ne mooy parcelle. bu ko gagné li nga xam ne mooy Sénégal. mooy Sénégal waaw xam nga kenn ku nekk ak sa sa gis-gis loolu dafay am kenn ku nekk nag da ngay gis-gis euh, Amadou nag bon war naa mën a gën a góorgóorlu nag bu baax a baax baax war naa mën a gën a góorgóorlu ndax Sénégal moom gagné ko du noonu waaw kon nag gars yi ba da dégg ñuy wax loolu ndax fi mu tombeel day metti ndax courant bi gars yi waxuma la dañ koo doubler waaye dañ koo multiplier courant bi metti na dund bi metti na ndaw ñi amuñu liggéey waaw c'est un peu compliqué daal c'est un peu compliqué. ñu waxaat tuuti rek li nga xam mooy euh, ki nga xam mooy état état ki nga xam mooy président Ousmane Sonko ndax jamono dem na foo xam foo tourné si mas yeeg si làmb yeeg foo tourné soo am euh, li nga xam mooy turam mooy jib tey yaakaaroon na tey jii Sonko su fekkoon dafa génn si dina bokk li nga xam ne élection. waaw moom day xam naa ni bon xaw ma dañ ko sot ci ladde guerre bi gars yi naan ko xaw ma nu mu demee noonu waaye xam naa ni daal gars yi bëgg nañ ko bëgg boo xam ne daal doy na waar daal wax moom. Euh, ndax foo tourné léegi jamono ji sonko sonko bi dafa dafa dafa dafa dafa dafa ci estaat yeeg waaw waaw waaw yooyu moom waaw ci ci ci wàllu woowu moom man man li may li may li may am na ñoo xam ne ñu ko jegee ñoo xam ne ci ñi leen di kiiwee rek mooy maanaam ci euh, euh, nañ ci génnee daal sëriñ si daal waaw côté boobu daal ñi ko wër daal bon man moom wax dëgg yàlla mënuma ci mënuma wax ci moom lii wala ci demee xam naa ne sénégalais yi bëgg nañ ko xam naa ne Sénégal bëgg nañ ko de léegi paa yeeg maire yeeg yëpp dañ cee dugg fu mu toll nii mais daal li ci gën a am solo daal mooy ñu génnee ci sëriñ si ndax euh, li tax ñu ciy génnee sëriñ si dafa am solo xam nga tey euh, euh, sëñ Mountakha mi nga xam ne falaa bokk ku defal université trente quatre milliards kooku Macky Sall mënu koo jox lu mu lu mu ko dëgg wala dëgg ki nga xam ne sëñ bi li mu def ci réew mi ci wàllu xew ku am problème mu taxaw taxaw la ci saayar taxaw la ci baatin kooku du Macky Sall moo koy jox benn un milliard wala deux milliards bu ko jommal si muntaxaa du weesu na loolu benn ñaar maay ñas mii keroog maa koy dégg mu wax ni aw président ne ko dégg naa da ma jox enveloppe ak kii mallette te man gisuma mallette bi te boo ko fekkee ci mbaaram googu mu toog ci pilian bu ñu ne kii mooy xalif général da nga naan déet xam nga oyof mënta weesu loolu xalif général day laayeen da nga ko dul gis sax moom moom ba ba ba mën koo waxal dara loolu boo xoolee xam ne kii yàlla yeneen bi ak laay dong la gëm moom ca la ne xam nga nga dem xalifa général de de de de de de de de de Tidiane mais bu bëggoon tey jii moom dix milliards fu mu toll nii am na ñoo xam ne tey jii ci biir Tiwaawoon di taalibe ay cheikh du dëkkuñu Tiwaawoon mën nañ ko jox dix milliards mbaa vingt milliards kon xalifa généraux yi ñoom nekkuñu ci dañ leen di jox xaalis wala dañ leen di jox marché wala nangam ba tax ñuy ànd ak état ba tax na yow nga toog fee di saaga ay kii ay ay ay kilifa maa ngi dégg nag seen kilifa gi moom mës na wax ni ne santu kenn muy saaga Serigne Serigne ndax wax dëgg yàlla seen naa ko ci jàmbaar ji Serigne Cheikh Saliou moom sëñ Saliou te jàpp naa ni euh, bu amoon idée boobu sëñ Cheikh Saliou du ko du ko du ko du ko recevoir waaye bokk na ci ay entourage ak ñi ko wër ak ñi koy waxal war na leen mën a xool bu baax seggaat leen te wax ak ñoom waaw war na leen wax ñoom ndax. mooy ñi ne ci réew mi ak ñi ne bitim réew waaw ndax maa ngi dégg uh, koo xam ne tey jii nii ñu interroger ko ci yoonu murit la ne ànd nañu màkk sax maak moom bi ñu demee màkk ma ne ko yow da nga jàpp ni ñi werante ba ci ak ma ne ko da nga jàpp ni sëñ Muntaxa mi da nga ko dëgg la doomi sëñ Basiru la mais da nga ko jàppee doomi sëñ Basiru mu ne ma weesuwu ko ma jóg bàyyi ko foofu ndax euh, moom daan wax noo seetaan kii na kii bu waxee kee bu waxee lan la ñu seetaanee sëñ Mountakha nan la ñu seetaanee sëñ Mountakha seetaanul li ko li ko war ma nga ca li li li maamam bëgg ma nga ca ah li mag ñi li fi li ko fi mag ñi ndonal bi ko sëñ Mourou Moussa bàyyil jox ko sëñ Fallou sëñ Fallou jox ko sëñ Abdou Lahad sëñ Abdou Lahad jox ko sëñ Abdou Khader sëñ Abdou Khader jox ko sëñ Saliou sëriñ Saliou jox ko sëñ sëñ sëñ Baara sëñ Baara jox ko sëñ sëñ sëñ Cheikh Mati Lay sëñ Cheikh Mati Lay jox ko ko moom mii di di di di di di Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na fi yàgg te loolu ca ne mooy tabax ay université yeesalaat jumaa ji yeesalaat tubaa to la xewoon démb ak démb yoonu murit xanaa xam buñ ko yabee léegi la yoonu murit kenn mësuñu woon a yab ci àdduna waaye bu ñu yabee rek dafa am ci yenn kilifa yoo xam ne ay chroniqueur nekk ci tele yi di wax ay chroniqueur wala ay yenn mbàkke-mbàkke yi am fi nu far rek maanaam bëgg jël politique ba dugal ko biir tubaa te lool loolu mu Muntaxa amul ko gën a du ko nangu ndax politique moom politique politique bëgg suñ tubaa waxee bañ ko waxee dafa ne bindul munu bind mu ne ban araf moo njëkk ñu ne ko baa mu ne ban yi du minal la ku koy def yaa sori nga yàlla ban moo ci topp mu ne ko ñu ne ko laa mbàkke mu ne la anatullah ku koy am am nga rëbbub yàlla ku koy def bu ci topp ñu ne ko Mbàkke taa mu ne tarkulla ku koy bàyyi bu ko def bàyyi nga sunu borom mu ne bu ci topp ñu ne ko mu ne keef mu ne kaafir ku koy def yéeféer nga kon nag yow sa maam mënta wax loolu ab nit jaral la ab politicien jaral la ba nga dem biir jumaay Tuubaa wala dem biir Tuubaa ñu fay dóor la kormasel wala ñu fay yuuxu keneen ku dul Sëñ Tuubaa loola loola ak murit ku ne moo tax ñun xam murit yi léegi fu mu toll nii ñaar la murit yi demee xel sëñ Muntaxa wax na nga ne non li tax sëñ Muntaxa wax le pourquoi yow lu soor sëñ Muntaxa ay waxam li armé naan y a pas murmure les ordres c'est pas mi xaw ma lan la ay waxam jëfe la du ay midi à quatorze heures déedéet moom ay waxam prib def jëfe la waaw day sëñ Tubaa ay waxam jëfe la tudd mais mu Muntaxa day wax nga naan ko non damay xool moo tax léegi murit gi léegi gars yi kii nañ ko moo tax yàlla nañu sëñ Tuubaa dimbali ba nga xam ne loolu sëñ Abdou moo ab murit da doon ab ëkk doo doon ab xob lu jóg yóbbaale la kon nag yan ci almusal buñ joxoon si waxtu jeex na nga wax li nga xam ne ak yan conseil ngay xam jox ñi nga xam ne mooy ndaw yi nga nekk biir Sénégal ak li nga xam ne moo fa am waaw maanaam pour résumer liñ fi jot waxtaan di leen gërëm leen sant leen ñaanal yàlla di wax ni euh, Modou Moukabaro mu ngi ci ay projet yi ñu ngi koy wàcc incha allah rabbi ci mois de décembre bi ñu ngi koy wàcc euh, wala incha allah mois de février ndax staff bi ñu ngi ciy waxtaan bu baax a baax di leen sant di leen gërëm yéen waa Dakar Midi ak internet yi ñu doon seetaan di di gërëm bu baax soppe yeeg xarit yeeg am di jàmm yi ci résumé li ñu doon wax rek euh, ci ndaw tuubaay yi nañu xool bu baax la ñuy def te xam ne sàmm war may dëkk bi ku ko mënta sàmm yaa xëyta mulaana Tamba ngi fii Louga ngi fii Ndakaaru ngi fii li nga bëgg def lool bu fekkee méngoowul ak Touba méngoo na ak Ndakaaru ñu bisil ñëw Ndakaaru ndax Ndakaaru moom fii dox dajale ku ne xam dafa waaye dëkk Touba borom dëkk ba nee na bugg fa saaya ndax nee na ni bu majaali sa saxaawa di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yàgg fi lool ànd ak wér di ñaanal Serigne Babacar Mbacke mu Moukabiru sama Serigne boobu yàlla na fi sax dàkk ànd ak wér euh, di di ziar bu baax euh, fi nga xam ne foofu laay yëngoo di di di di fa daan sama doole maa ngi nuyu ñoom ñëpp di di di ziar mbokki xaar yàlla Grand di ziar mbokki jëppal Derkele Liberté 5 Liberté 6 nga xam ne diggante boobu foofu laa yoroo di leen nuyu ñoom ñëpp di di di naan asalaamualeykum aleykum rahmatullahi taala wa barakaatu. sëñ Modou ah, kàddu yi am na solo trop trop trop mais dama am sama la bi ma yóbbante ndax li nga ma waxoon sànq si bi laa ko wax mu ne ma soo toogee moom na na si ñëwaat. <laughs> kooku sama xarit la. maam Thierno Birahim moom moom moom maam Thierno saa nit ñi naan ko maam Thierno Imaam nga xam ne damay faral di wax ni bette bette pure la yaa Fatima yaaye moom sëñ Modou Awa Balla nga xam ne doon ci baayam. ci ci ci lépp ci ci ci tabe ci mbaax ci dogu ci dëggu ci conviction ci engagement ci détermination waaye ñoom Cheikh Amadou Kara Mbacké Noreyni yar na ay njabootam yarin woo xam ne maanaam man dañ ma sax yéem ku mel ni sëñ Abdou Khoudous ku mel ni eh, Ahmad sëñ Ahmada Jadi nga xam ni dañuy ay nit ñu baax maam na Sani ak eh, Serigne Djili Yamli Xaa nga xam ne ñoom laa ci gën a miin ak euh, prince Kra tuuti laa ko laa ko miin xam mais ñi ma la wax nii ñoom laa ci gën a miin waaye maam Thierno nii la mën a men ndax bette bete la sa sang boobu Birahim Fati ma jë pencum boppam Fati Awa la Cheikh Awa la Awa Balla ku ma njoon maam Dieng warax Mbodj Thierno Ibra Fatey sa maam soxna yaa Fatey sa yaay sëñ Modou Awa Balla yi baayam maam Thierno yi baayam Cheikh Ahmadou Kra Mbacké Noreyni al amirul sultaan borom Bamba merci Bamba jërëjëf borom Bamba partout ki nga xam ne mooy borom alxadmiya nga xam ne tey jii projet boobu ak politique boobu nan ko dem gëstu ji ci Cheikh Ahmadou Kara Mbacké nii xam kii nan la àndil Sénégalais yi bu boobaa duñu fi nekk di xool politiciens yi dañuy mën a dem defe naa ni euh, euh, am na ci yu bari yoo xam ne mm, mm, ci gars yi defe ni mooma mën na bañ a doon moom te lépp mu nga ca al xaddimiya kon jërëjëfe Serigne Touba sallallahu ala muhammad waaw sëñ Modou ah, kàddu yi am na solo trop trop di leen joxaat dig daje di nuyu tamit sama cadre ah, Seydina Ousmane ah, borom Dakar midi di ziaraat ñëpp nuyaat sama xalifa di nuyaat sama général ba monsieur Ahmadou Kara Mbacké noreen waaye kenn du maam imam nee naa sama sang boobu noonu ndax amuñ dara